match bi lu am na solo ndax match yi lii la woon nu mu tudd match la woon ku nekk da ngay natt sa doole quoi mais équipe bu toll di Brésil moom boo amee ci kanam moom ndam rek am na solo même bu nekkee 1-0 la rawatina nag mu mënee ñëw ba pare nga demoon di ko dóor ko 4-1 loolu moom baax na quoi équipe bi mu ngi gën a màgg mu ngi gën a suudewu mu ngi gën a avancé. fu dëkkul dëkkatul fenn voilà ndax démb soo xoolee Sénégal nu entamé match bi nga xam ne équipe bi dafa ñëw pour jouer te loolu mu ngi commencé si classement Sénégal mo mérité na victoire bi quoi parce que ñaar yoon football neen ñu ne Brésil daf match en nii léegi match démb bi mom 4 4 2 la wa di yàlla contane neen bu baax ta lool mom moy ndamu Sénégal ndax ni do mak do football ak équipe ñetti yoon yo xam amo ci si victoire do moom démb contane neen trop Sénégal contane neen bu baax. parce que Sénégal bi de gaan bëgg te leen ko gisee gaan parce que gaay football lan quoi kontanan nan gars football nan parce que Sadio Mané moy loolu quoi champion la football la ba xam moy mooy loolu. démb Aliou am maxi bo xamanteni ni nii ansi bi da da am dole parce que kan ngay dajé Brésil rek dafa doy mu jël ko xamanteni musa ko koy ra Sénégal mu ñew indi ko lo déjà ben point la musa ñaxaté ñep jàppoon ay Abdou Diallo wala ki moy ñew Abdoulaye sek mu indi musa ñaxaté remplacer ko place Abdou Diallo. mu nekk teg défense boo xamante ni fi loon xaar foofu la ñëw ba si milieu terrain bi parce que man parfois damay wax ne Nampalys Mendy euh, kii Gana Gueye man tout le temps bëgguma ñu bokk terrain parce que ñoom ñaar dañuy niroo pro li ñuy li ñuy football dañ koo niroole parce que ñoom ñaar ñëpp ay six leen booy léegi ñoo si gën a nekk quoi ak Pape Gueye soo bi mën nañu wax sax mooy am moo gën a man lu mu def man gisuma keneen koo xam ne def na fi comme loolu Sadio Mané tamit dugal na deux bi yaa ma gën a xam am na solo mais est bi ni pour nga indi ay joueurs yu bees moo gën a am solo quoi pas que ngay jël ñoo xam ne dañ fay nekkoon rek ñii ñoo fi def rek comme ñoom nañ leen fi bàyyi quoi ñuy def demeewul noonu da nga xam ne ñoo gën am temps de jeu seen club bi ñoo a doxal nga jël leen nga def leen ci équipe bi loolu mooy indi équipe bu mag quoi pas ñii fi nekkoon di def après ñoo war a continuer non non ni mu solo trop quoi moom mu ngi commencé ñëw tuuti moom tamit bu njëkk da doon folog mais démb moom nice quoi waa dëgg démb moom Aliou Cissé lu moom kontaan naa si lool ndax démb joueurs yi taxaw neen taxaw bu am solo ñëpp kontaan neen ci classement bi. xam nga gis ñun Sénégal lu ñu sonal mooy suñu milieu bi daa manque créativité waaw te démb Aliou Cissé daa osé ñëw indi fa Pape Gueye Nampalys indi Pathé Ciss des na sax ndax instant foofu ne ba léegi manqué na milieu offensif mais ñooñu moo moo tane mu indi Kouyaté Gana ndax ñooñu dañoo défensif bu santoni Sénégal dafa amoon défaut créativité mais gis nañ démb même Brésil su ëppee lu mu teebal bi sax mais Sénégal moo ëpp occasion ay franc loolu yëpp créativité moo ko moo ko li mu teg moo gën ñaari siis yi mu doon utiliser parce que ñaari siis heure bu ñu ko defee rek Sénégal day am problème mu occasion du créer du créer dara parce que démb boo xoolee démb espace bi Ismaïla Sarr am ah espace bu mel noonu Ismaïla Sarr bu koy am da koy jël Ismaïla Sarr moom espace yooyu da koy jël nga gis Sadio Mané si côté bi gis nga ko donte newu si forme mais démb daanaka wan nañu loo xamante ni dal na xel waaw parce que Sadio Mané démb premier bitaa bi gisul d'accord mais football moo demee noonu mais deuxième bitaa bi Sadio Mané li mu ñàkkoon si premier bitaa bi amaat na ko si deuxième bitaa bi léegi nag lii leen xaar si parce que Aliou Cissé des fois dalaan teg loo xamante ni Sénégal duñ comprendre parce que fii ni dama nekk loo xam ne Sénégal yi léegi kenn mënatul ne nax si football fii ñëpp a xam loo teg ne rek bu jaaru yoon supporters yi Sénégal yi ñoo njëkk wax ne lii am nañ lu gën lii te finalement noonu la mujj demee mais léegi mu ngi yeew parce que Alioune Seye démb boo gisee li mu teg boo xoolee boo ko xoolee carrément rek moom da ngay xam ne kii xelam daal na te onze bi mu teg gëm na ñëpp def match la mais daal ñaar ñi moom waaw seen at neex na trop ci match bi mooy Moussa Niakhaté ak saabale équipe bi macha allah équipe bu dëgër leen gis équipe boo xamante ni am na yaakaar équipe boo xamante ni xeli Sénégal yëpp dal neen tey waaw màgg nañ équipe bi damay jàpp ne man équipe bi man amatuma équipe bu ma koy tiital parce que équipe bu xale la équipe bu sën la te équipe bi mu ngi sóodewu te li si gën a neex mooy concurrence mu ngi am parce que boo demee si défense bi am na concurrence nga ñëw si milieu terrain bi am na concurrence nga ñëw si attaque am na concurrence donc daaw ne booy bu ñu wan ne nii buñ ko changé wul buñ ko changé wul yàlla xam ne dañ koy jël facilement sax ndax doole yi yemul doole yi yemul quoi ba pare booy dañoo am philosophie gañ chaque match dañu am philosophie gañ même bu ñuy ñàkk sax dañuy da ngay xam ne ñii nii gañ lek moo nekk seen bopp yi quoi te loolu moo am solo waaw comme si que ñëw rek football nii ay yooyu noonu booy dañuy football si biir terrain bi nga xam ne ñii dañu am philosophie ne dañoo war a gañ match bi moo tax coupe d'Afrique moom sa waaye moom war nañ ko mën a jël facile quoi gëm naa bu baax a baax à 100 pour cent sax waaw ñu ko gëmee sax gëmee moo ndax indool ni foofu côté effectif amul équipe bu ñu gën jeu amul équipe bu ñu ko daax kon pourquoi pas waaw ndax instant toll soo xoolee effectif sax tolluñu fa benn équipe waaw équipe yi fi nekk ay Algérie Côte d'Ivoire soo xoolee équipe bi soo amee attaque du am défense soo amee défense mais Sénégal dafa complet parce que boo jël instant toll ab grand moo fa nekk et yoon la ñuy doubler kan bi yaakaar nañ ko ci. Coupe d'Afrique bi moom incha allah Sénégal mooy grand favori loolu kenn weerante wu léegi nag dañu xaar Sénégal pour mu def confirmer mais Sénégal favori la loolu dootuñ ko waxaat. donte nag bëri na ay qualification qualification yi bëri na ay équipe yu mag yu ñëw parce que boo xoolee Nigeria ñëw na Égypte Algérie Tunisie ah Côte d'Ivoire moo ko organisé ñooy ñëpp ñëw neen comprendre mais da nga gis Coupe d'Afrique bu neex parce que Coupe d'Afrique boo xam ne dafa bëri ay ndaanaan gis nga ko ba si Maroc li mu def Coupe du monde bi Maroc moom it day bëgg a ñëw confirmer parce que jàpp na ne Coupe du monde bu baax la def te loolu moo am. légui nak lolu da koy indiwaale confiance gogo da koy indiwaale ci kan bi motax kan bi Sénégal moy fobéré mais nak du yomb parce que football Afrique dafa metti football Afrique du footballu tubaab Afrique man nga nek meilleure équipe nga tassé équipe Afrique bu ndaw mu ñew danel la pincé la lolu mëno ci dara parce que football Afrique agressif la agressif boobu moy tax muy nga yeggali mais nekku football bu rafet ni bu lom football bu rafet rek konoon Sénégal bi déggé champion d'afrique yagal mais bo bëggé dégg-dégg football bu rafet mënu yeggali footballu Afrique agressif bi ak jom bi daf koy laaj mais nag Sénégal moom ñu ngi inspiré ñun bu soobee yàlla Coupe d'Afrique 2024 lu mu métti métti ñun jàpp na ne Sénégal moo koy gagné parce que grand favori leen ko def te jàpp na ne incha allah bu soobee yàlla Sénégal dina ko indi.